السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu ci ndigalul sëriñ Abdou Fattah mii toog di leen ndokkeel di leen bal xaq te di leen balu xaq yàlla na nu yàlla boole jëkkal di bokk di sant yàlla bu baax ci may gim nu mayoon ñu fekkee weeru koor lañ ca jot a jëf mu néew mu bari yàlla na ko suñu borom nangu mu mel ne weeru lëmm jóge na ci suñu dund te du dellu waat ñu war caa jàng ne lu nuyoo rek tàggoo na ay fan ci gannaaw <clears throat> jàmmante yépp daana ca bokk ndax yéen a ngi waajal koor gi tey jii mi ngi nii di dem yàlla na nu fi bàyyi ci jàmm te fekkaat nu fi ci jàmm kenn bañ koo wuute sëriñ bi nag jollu du dénk ñu gën a fab sunu tànk teg ko ci taqwallah ak sukkandiku ci moom taqwallah nag gudd gàtt mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi suñu boroom ne ku jëfe ndigal yi bàyyi tere yi lu mu dugg lu mu rëy rëy bunt ba ko cay génn suñu borom moo ko koy sàkkal ca mbir ma wa man yattaqi yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib waaye nee na ku teg tànkamit ci taqwallah lu jafe ñépp mën naa yomb ci moom lool wa man yattaqi yaj'al lahu min amrihi yusra waaye nee na ku teg tànkamit ci taqwallah bu ëllëgee rëcc rëcc yam xamoon ak yam xamut yépp suñu borom mën na ko ne mën na koo far ni ni aw rëdd dal ci yàlla boole wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayiatihi wa yudim lahu ajra sëriñ bi nag wax ne ci fan yu néew ci gannaaw ku ko seetlu da nga gis ñetti aayay alquran yu suñu borom doon wax ñun ñu teg suñu loxo teg suñuy gët suñu borom waxoon nañ ci alquran ne yuqallibu llahu layla wa nahara إن في ذلك الله عبرة لأولي الأبصار سنو بروم ووتال جيمي ووتال غودي اندي بچك ووتال بچك اندي غودي نانا كوتا جانجي و دار ام خلام كات نانغام كيسا تي نك واي نيوون ناي دا نا لين وان دا نا نو وان اي كاو تيفم تامبلي كو فينو گنا جيغي با فا با نيو خامني موم يالا دال موي دغ سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق بماي با تا توب موم لاي موجي بوكي فان ييغا خامني مو جال يار با يتي وير سونو بوروم ولبتي ني في جامونو ولبتي غو خامني كو يابو تامبلي سي موم يام سي موم رك te su ma waxee tàmbale suñu yam ci moom ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi ndax suñu sëriñ bi ni ko sëriñ di fi nekkee ba Je ko mujjee gis yépp ci boromam la nekk kon ku topp ci moom ne ko di xool yaa ci topp suñu borom ko ñu a ci ab xew-xew ci mooy ñi jógoon ay la wax ne dañuy sàkk ku leen dink suufu Sénégal si ak li nekk Sénégal lépp loola suñu boroom wan nañu ci ne ku yabu tàmbalee ci moom yam ci moom ba ñuy tànn tànn nag boo ko gisee dana am ñu jàll am ñu jàllul te it tànn ci wenn xeet lañ koy def bu ñu ko jëlee misaal ci lu ñu gën a jege ña suñu borom tànn rek ñoo jàll bokk yi nit dana jël aw jiwoom def ko ci ak leket leket gu ràmm def yam yi def ca biir jox ko as ngone mu yanu ko ne ko bul wax loolu lépp gone ko dañ koo tànn tànn jiw wa waaye bu ñu demee ba kay tooba tooba ba ñuy cof di sànni dana am fépp yoo xam ne du dem ca po tooba ma tànn ñu leen waaye bu demee bay saxe dana am yuy sax am yu dul sax ya saxul dañ leen a tànnul suñu demee ba ñor ba yëpp ne sañ sa gubb it dana am yoo xam ne duñ ko jot a góob ay ficca fay ñëw for ko yóbba yóbbu tànn ñu leen ñu war a bokk ca gubb waaye buñ ko góobee ba yóbbu ko ca dàggaje it bu ñuy bojj am na yoo xam ne fa ñu leen fa ñu koy banqué di ko dugal ca tuq sax wala gënn ga ca la ñuy ruuse wadd kontaan nu ñu leen ngir ñu war a dugg ca gënn waaye bu jógee ca gënn yi ba war a soq bala ñu ko yóbbu ca kër ga noona dana am yu bu ñuy soq noona bu ñuy foofu noona bu ñuy wal noona bu ñuy mooñ ba àgg ci siim bu ñuy dem bay siim it gone dana tibb du mën a gën a ci gémmiñam nam koo waree am yu wadd waddaat leen ci loolu nag danañ ci gis lu kii maanaam li yàlla ne dana wane ci ay kaafu téefam ci gox yi tàmbale ko ci nun la wax yooyee am na ca koo xam ne li fi néewagutoon ne danaa bëgg a dama bëgg a bokk ci ñiy tànn jox leen réew mi du faatu mukk am na ci koo xam ne fekkewu ko am na ci koo xam ne it ñay tànn nee nañ ko mën ngaa bokk ba mu bokk waaye moom itam ba yëfey sotti fekk ko ci sagoom ba ñuy samp ka ñuy samp ci coobare suñu boroom fan yu néew la ko fi yàlla jale ñom ñep yàlla na yàlla yërëm te jéggal leen te defal ñu xol buñu leen mëna a muñe waaye ki nga xamne yit mom la yàlla dogal ñu tan ko lu yéme la sanurihim ayatina fi laafaaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alxaq koo xam ne ba muy um koor ci barab la ko fekk ba koor ga demee ba sori yàlla tànn na ba noppi ne ay feppam jeex na foofee mu nekkoon waaye yàlla dogal na it fepp yi nga xam ne tànn na ko mu war koo jëfandikoo li des ci koor gi am na feneen fu mu ko war a fekk fu dul foofee dafa la ko fekk ren kon boog yàlla nu yàlla dimbali ba ñu tàmbalee ci moom yem ci moom kepp waaye ba may jeexal tënk na lépp suñu borom dafa ñu wax ci alxuraan ne juróomi yëf ngi ni yoo xam ne dénku kenn moko teel bopam mom dal euh mom dal nak so ngeen gisee mag ngi dan firee wax waxdahu la sharika lahu wahdahu mom dal moy ko xamne kenn mësu ko fekk fam nek te kenn dutu ko fa fekk nee juróom yi dénk ko kenn mom dal moko xam mom dal mo xam kañ la bis penki taxaw mo ne woon ci alxuraan la ta'tikum illa baghtatan waye neena na it moom daal moo xam taw bii donte xam-xam wane na ni suba sa ngoon mën naa taw wala ginnaaw suba la xam-xam ba yàlla téye ko jox kenn mooy taw boobee lan lan lay ñoral loo xam ne nit da koy lekk wér ci wér dem wala nit da say lekk ñu wala ñu saraxale ko tax waaye nee na it léeg lekk nit gis tase jigéen ci mbedd mi ne tarafet xool ko xam ne kii kat bokkut ak nam meloon nam ko xamee woon kon soppi ko na lam àndal xam-xam dem na ba. di tàndale naan góor lam jigéen la wala kenn la wala ñaar waaye la ca yàlla téye joxu ko kenn mooy kii day gudd fan wala day gàtt fan day am wërsëg wala da koy néewli day taxe ëllëg wala day taxee di ak day am taxawaay walla day ak ndaama lay doon waaye ba ci topp te wënu ko jox ko kenn mooy tey nit ki mën naa am dara mu néew mu bari waaye wóoru ko ba xam dana àgg ëllëg suba dana am lam amoon tey waaw wala déet waaye ba ci gëna a moy nit ki xamut san suuf lay faato nit dina tok ci am rew ay at at xelam du mas a nekk ci génn waye sa bu dig ba accès génnam day yomb lool ndekete yo day dem wara faatu ci inna allaha indahu ilmu saa wa al-khaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun maada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut inna allaha alimun xabir yàlla mi nga xam ne xam na lépp dañ kumpa ci lépp ñun ñii dañuy xam dara ba foo ko gisati ëllëg xàmmee ko waaye yow mi laata nga koy xam wala mën mi laata ma koy xam suñu borom xamoon na ko bu yàgg yàgg te dañoo na ci kumpa xam na fépp fu muy mujj kon boog sëriñ bi nee na ñun ñëpp nañu gën a maase fab suñu tànk teg ko ci taq wallahi jëfe ndigalu suñu borom yi te bàyyi ay tereem te wéeru ci moom te bàyyi kook suñu bopp mi ngi ñaanal nag ñëpp la ñu jaamu yàlla ci koor gi yàlla na ko yàlla nangu mu ngi ñaanal ñëpp rëcc rëcc yee ca jot a am yéen ca xam ak yéen ca xamul yëpp yàlla nañu ko suñu borom jéggal di ñaanal ñëpp nawet bi nga xam ne moom lañu dëgmal yàlla nañu ci yàlla yóbbu te suñu borom wàcceel nañu ndox mu barkeel mu ñoral moo xam ne la cay ñore lépp ñun ñëpp danañ ko bokk muurloo dellu di ñaanal nag nga xam ne moom la. suñu borom teg kilifteefuk dëkk bii ci loxoom muy suñ abu baraka suñ abu fata mooy wax ñaan googu bu ko yàlla nangoo yàlla na ko nangu yàlla na ko lawal ci njaboot gi yëpp waaye it yàlla na ca baal xel bu baax a baax ak Cheikh Mouhamadul taxa mi nga xam ne moo fi nekk nekkal fi Cheikhul Khadim te it liggéeyam bii nga xam ne moom la di liggéeyal Cheikhul Khadim di ko liggéey yàlla jaarale ko ci sëriñ Touba nit ñi war koo jariñoo mu jariñ leen tey ëllëg sëriñ bi nee na saa bu geesoo rek yàlla na ñu gis ñu topp ci moom di ñëw bokk moom moom di ñaanal ñëpp di sant ñëpp kat yi mu waxoon gën naa gudd gën naa jot waaye loolu la ci waxtu maye ak sama xel mu gàtt yàlla nañu ko fekk déwén te déwén dàq ren fuuf te it nee na naay baamu la kooko waxoon suñ fallu rek barkeeloo ko ca ba mu ñëwee ne ko dama laa soxla waxtaan mu ne ko maa ngi lay déglu mu ne ko ah ci wédde laa ko soxla woon mu ne ko wét ga day su wéetee it ñii moom maag ñoom benn lañ danaa leen ko waxaat mu ne ko damaa topp borom barak bi ba gisatuma ko ma ñëw ci Cheikh Moustapha ba gisatuma ko mu ne ko ah léegi nag mu ne ko ma ñëw fi yow fas yéene ànd ak yow lu yàgg yàgg yàgg yàgg mu ne ko bu noppi yàlla na nu fi nekk lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg te bàyyil ñu suñu Abdou Fatah ak mbokkam yu tedd yi mu àndal suñu Abdou Lahad Cheikh suñu Cheikh Awa Balla ak mboolem seeni doom ak seeni donc fan wu gudd ànd ak ku wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñaanal ko mu yàgg ci barke Sëriñ Fall Thank you.